jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 euh, seen émission pencum réew mi mbokk yi ñu am mbégte dellu siwaat ci samedi ji comme li nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen euh, samedi bu jot bu quinze h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre du Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Cheikh Omar Cissé moom mu nekk coordonnateur national. yor lépp lu jëm ci wàllu massification parti bi di union sociale libérale di USL mu nekk euh, parti boo xamante ni euh, njiit li mooy maître Abdoulaye euh, Tine ñëpp xam ko aussi taxawaayam ci Sénégal ci biir réew mi tey Cheikh Omar Cissé moom la ñu invité tey fa yéene seq ak moom waxtaan waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllum actualité politique. Euh, Cheikh Omar Cissé am na ñu mbégte ci wujj bi nga xam ne wusi nga ko suñu invitation ci émission pencum réew mi. Hmm, merci beaucoup monsieur Seck euh, maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi di nuyu aussi le président maître Abdoulaye tin di nuyu seen auditeurs yi ak auditrices yi. di xaar laaj yi ñu jéem a waxtaan ci tolluwaayu réew mi. waaw euh, Cheikh Omar Cissé fi nga xamante ni fi la ñuy njëkkee tey mooy euh, démb ci àjjuma ji gis nañ F24 amal rassemblement ci place de l'obélisque F24 nag mu nekk euh, kuréel boo xam ne ay parti politique ak ay mouvement ay association ak société civile bi ñoo si nekk F24 amaloon am ndaje niki démb ci place de l'obélisque ndaje moomu ban commentaire nga si njëkk a def waaw comme ni nga ko waxee donc ay parti politique la ay association ak ay organisation donc seetlu bin ci njëkk a am rek mooy le Sénégal en miniature mooy Sénégal démb am na ndam euh, Sénégal wan na Macky Sall ne war nañ ko gannaaw ndax boo ko xoolee euh, yeewi askan bi bi passé euh, muy élection municipale yi ak élection législative yi gis ne doole ji mu nga jël yeewi askan bi euh, boole ci yeneen parti yoo xam ne mu ngi mel ni suñu bos di union sociale libérale bokkutoon yeewi te tey mu ngi ci biir nga jëlaat yeneen organisation yoo xam ne bokkutoon yeewu ñu ngi ci biir bon jàpp nañ ne am nañ total bi ñu doon xaar ci askanu Sénégal wane nañ seen bopp ne Macky Sall pare nañ ci moom wane nañ seen bopp ne li ñuy xaar ci waa F24 lépp lu leen oo ñoom pare nen pour ànd si ñun. donc satisfaction totale leen ci gis le Sénégal en miniature. mais est-ce que tey euh, yéen jàpp ngeen ne da ngeen a lancé benn signal fort boo xam ne jàpp ngeen ne président Macky Sall daf ko war a décortiquer daf ko war a bàyyi xel message boobu est-ce que jàpp ngeen ne ak seen rassemblement bi dina yëngal Macky Sall wala dina ko deltuloo ginnaaw ci yi nga xam ne bokk na ci seen i euh, ñaxtu. waaw. donc ñun suñu problème d'après comme parti bi ma fi toogal ndax su may wax ñun membre leen ci biir M24 euh, du problème yi yëngal waag mu delloo si ko gannaaw problème bi mooy mu xam ne doole ji sénégalais yi ñoo ko yor parce que ñun dañuy faral di wax ne le changement c'est le peuple te le le peuple am montré que peuple bi wane na ne moom bëgg na changement te li fi nekk doyal na ci donc bëgg na Macky Sall dem te Macky Sall j'espère que peuple bi moo ko fi tax a toog donc signal boobu moom bu ko doy dara dootu ko doy parce que xam ne ne changement dina am incha allah te yaakaar nañ ne président bi war a ñëw en 2024 ci F24 bi la nar a génnee. d'accord léegi yéen euh, def ngeen seen première rassemblement mu nekk rassemblement boo xam ne euh, gis nañu ne mbooloo mi euh, wuy si nañ Euh, est-ce que am na yeneen jéego yoo xam ne di ngeen ko tegaat. waa jéego yi du jeex ndax politique circonstance la donc tey fii ñu toll ci réew mi donc ci euh, li nga xam ne door nañ ko mënul wax ne lépp day ñëw rek parfait parce que imperfection ngay dem di defaraat mbir yi di xool donc dans les jours de ci bés yi di ñëw dinañ xool li nga xam ne war nañ ko ci yokk mais li ëppoon solo. mooy li ñu taxoon jóg mooy troisième candidature euh, warul am euh, li ci topp mooy les détenus politiques yi nga xam ne jàpp nañ leen dañ leen war a bàyyi li ci topp aussi tamit mooy parrainage bi nga xam ne tey euh, parti bi ma nekk xeexoon na ko ba yàlla may ko ci ndam muy CEDEAO doon benn gàllankoor boo xam ne Macky Sall daf ko dugaloon muy ndëji sirax pour tànn ay candidat am parce que li tax ñuy am xalaat di wax loolu en 2012 ñun ñëpp suñu amee taxaw seetlu dafa amoon benn premier ministre bu fi génnoon ne Sénégal cinq candidats lay am yàlla dogal. xa 2019 euh, yàlla dogal euh, cinq candidats yi ñëw. Mohamed Boun Abdallah Dionne Mohamed donc xawma euh, li ñuy wax daje mooy waral ay gaaf wala. tombeel waral ay gaaf. donc donc moo tax taxit ñun ñu xam ne ndeji sirax la loolu bokk na ci li ñu xeex ak comme Macky Sall yàlla def na ne du bokk ci élection yu ñëw mu créer ñu ay élection yoo xam ne élection yu libre lay nekk ku bëgg a bokk bokk ñu def ko ci transparence euh, du génn ci M24 yàlla am ku mu ki jox ndam nga jël ndam li ñu doxal Sénégal mu jëm ci kaw waaw Cheikh Oumar Cissé euh, wax nga li nga xamante ni tey mooy Euh, taxawaayu F24 bokk na ci euh, xeex lu jëm ci wàllum troisième mandat troisième candidature président Macky Sall yéen ñi ngeen jàppee ay détenus politique ñu libéré leen beneen bi ñi nga xam ne ñoo ngi leen di faagaagal ay adversaire président Macky Sall bàyyi loolu mais yéen yéen a ngi wax ay détenus politique mais président Macky Sall neen détenus politique amul ci réew mi. waaw xam nga lu ne fànn kenn du ko jeex. donc euh, moom dafa déglu waxi Souleymane fay bi mais àggaliwu ko parce que Souleymane daf ne képp koo xam ne teg neen la lu la métti nga bañ ko rek dafa fekk kilo ko teg amul ëpp la doole waaye nag daf ci yokk ne leen doon xeex ba léegi ñu ngi continuer di ko xeex hmm. moom foofu la àggoo ñun jàpp nañ ne euh, détenu politique am na mbir mu ne nag nit ku nekk yaay xool comme ñun ci askanil benn bokk muy yow muy man ku nekk boo toogee xool tey gis ne ne Sénégal soo waxee sa xelaat ci lu bëri ñu jàppale la tëj waxul ne nag nit dafa war a toog wax lu mu wax parce que ñun aussi on est appelé à diriger ce pays demain donc lépp lu ñuy ànd ak nit rek dañuy ànd ak nit ci dëgg mais tey soo seetloo am na ñoo xam ne wax neen fi lu tax ñu tëj leen am na ñeneen ñoo xam ne mu ngi bokk ci ñoom wax neen loo xam ne tëjul leen mën naa la wax Suzanne kamara mi waxoon tey ne Ousmane Sonko dañ ko waroon jàpp faat ko mu ngi doxi ay soxlam donc loolu leen gënu ko rëy donc loolu dañ koy condamner fermement parce que ñun euh, su parti bi ñu bokk dañoo de gëm gëm dëggal jubal moo tax sax su suñu parti da ngay dégg ñu ne la baron amul fa ñëpp benn leen donc ñun nag euh, xaj na bokk ne nag gars yi waaye nag aussi comme den ñaan yàlla ëllëg yàlla jox ñu réew mi suñu yee suñuy askan dañ lañu yee ci dëgg lépp loo xam ne du dëgg duñ ci mos a ànd layow mi diini waaw mais est-ce que Cheikh Omar Cissé euh, du gàcca ci Sénégal euh, fi ngeen nekkoon démb di place de l'obélisque euh, foofu 2011 2012 tey la ngeen fa xeex démb moom lañ fa doon xeex 2011 2012 est-ce que du gàcca tey Cheikh Omar waaw man nga wax ne gàcce la man nga wax ne du gàcce ndax àddina lépp yaakaar la ndax euh, ñun am nen soo dégloo suñu discours si suñu parti da ngay dégg ñu ne ku nekk mën na wax dëgg mais ñun ku dëggu la ñuy wër dëggu googu nag ñu gis su maître Abdoulaye Tine gis ko ci ñenn yaakaar ko fa parce que à chaque fois askan bi tamit euh, temps la pour instant bi ñu xoolaat ñoom ci naka la ñuy tànnee parce que ñoom ñoo yor doole ji parce que tey nit mën na fa nekk mu wax li nga xam ne juste pour atteindre benn objectif la li ko jot mooy naka la ñuy def pour jox ko réew mi léegi nag euh, du gàcce euh, parce que li ma lay wax tant que xeex baa ngi continuer di xeex bu fekkoon xeex bi dañ ko arrêté ñu ne gàcce la mais li mu doon bañ ñu ngi continuer di ko bañ mais yaakaar rek la nit mën a am ndax nit ku nekk su la waxee ci kàddoom ak jëfam si nga ko mën a juger donc le président Macky Sall bokkoonte ni si toog foofu Mamadou Diop euh, fa Mamadou Diop tey démb nekkoon na ñu ngi saaga sax mémoire am parce que foofu en 2012 fa la décédé woon te ba muy décédé dëgguwaayu message bi ñu fa toogoon li doon wax moo ko dugaloon ba yàlla seppiwoon ko ci nit ñi mu nekkoon koo xam ne moo fa doon noddu ñëpp ràññeekoo tey yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënee fu jógee donc tey moom bu ko njabootam gisee ay doomam war neen màgg wala jabaram gis ko day doon gàcce ci ñoom gàcc ci ñëpp parce que maître Abdoulaye Tine moo jëloon combat boobu tous les détenus yu nekkoon ci élection yooyu passé dox ci ay jéego ba yàlla mayoon ko ci ndam ci ma Mamadou Diop mais nag yaakaar euh, bu tasee rek yaakaar day judduwaat neen jàpp ne tant yàlla y a la loolu la ñuy wax donc mënoon jàpp ne gàcce la waaye neen continuer combat bés dina jot incha allah li ma mën a assurer mooy parti bi ma nekk ki ma nekkal gëm naa ko wóolu naa ko ne nit ñi di bàyyi xel aussi tamit nit ñi parce que wax dëgg yomb na ku ne man na ko waaye dëggu moo am solo. d'accord mais euh, Cheikh Omar Cissé 2012 dañu gis ne nii ngeen di defee rassemblement ni F24 di ko def moom la fi euh, ay leader doon def daa 2012 euh, ay Benno Siggil Sénégal ak yeneen ak yeneen doon xeex troisième candidature maître Abdoulaye Wade mais ba ñu demee ba. ñu dëggal candidature Ablaye Wade ci conseil constitutionnel dañu gis ne am na si ñenn ñoo xam ne beddeeku nañ dem campagne yi dem bokk ci élection yi yéen itam est-ce que même scénario bi du présenté waat. non dun wax même scénario dina parce que li ñëwagul ku ci wax rek njuumte mën na laa da waaw duñ ko mën a njort parce que soo xoolee M23 en 2019 ni ñu ko xeexee woon tey boo gisee mobilisation bi F24 def euh, nga xam ne euh, moo ëpp doole bi M23 amoon waaye nag nit ci àddina dafa am lu lay jàngal xañ na li njuumte yu waa M23 defoon wala nit ñi jàpp ne njuumte leen waa F24 dinañ ci jàng ba tey jii nii lu bëri dañ ci dugg parce que tey boo gisee dialogue bi ñuy wax amaana euh, F F24 ñu bëri neneen duñ dem donc loolu rek satisfaction la am na ñenn tamit ñu wax ne dinañ dem te dañ la ñu nangul euh, aussi seen i position parce que bokk ñàkk bokk xelaat du noonu parce que ñun den gëm démocratie. waaw mais mais tey euh, tey deux mille euh, quatre élection présidentielle deux mille vingt quatre seen rassemblement yi nii ak taxawaay bii ndax yow jàpp nga ne walla njortu nga ne mën naa tax. président Macky Sall génn xelam ci troisième candidature. non président Macky Sall fi mu war a njëkk a génnee xelam du taxawaay bi ndax ñun ñëpp ay sénégalais ñoo bokk même air bi ñuy nokki même ngelaw te nit ku nekk kàddu dafa am solo parce que moo taxawoon wax kanam sénégalais yëpp ne bii nii mooy bu mujj ci man boo leen ma falee mooy ma jeexal. donc du problème yi lii moo ko war a mën a tax sax mu dem mais moom ngorom ak jomam ak la muy woote moo war a tax mu bàyyi ndax Sénégal moo ëpp doole lépp te jàmmi Sénégal mooy jàmmi ñëpp ñun ñëpp Sénégal leen nekk moom ni ko ko yàlla dénkee nit ñi dañuy wax douze ans mais man damay wax vingt quatre ans ndax yàlla bu la teralee seppi la ci biir nit ñi nga ànd ak Ablaye Wade douze ans yàlla defaat le président de la république du Sénégal ñëpp nangul la ko donc yàlla amatul lum la desal yow nag yaa desal yàlla yaa desal askanu Sénégal te li leen desal mooy nga élec nga créer ay élection yu libre te transparent nga bàyyi ay détenus politiques yi te troisième mandat bi nga jël ko teg ko fële ci suuf xam ne mënatul nekk te askan bi moo yor doole bi te wan nañ la ko xam nga des fois ñi ngay àndal mën nañ la dugal ci guuta te góotu googu ñu dugal yow kenn ciy des parce que bëri na ay événement yi fi jaaroon ñi nga daan dégg ñi wax yëpp kenn waxul ñu bëri génnoon leen dëkk bi ñuy toog seen kër yi kenn génnul donc moom moom moo ciy des te jàmmi Sénégal mooy jàmmi ñëpp donc ñu ngi koy fàttalil di ko delloosil xelam ne troisième candidature moom na ko jël teg fële euh, ci li ngay wax parce que muy conseil constitutionnel pourquoi des fois les gens ont tendance à dire des sage des fois sax euh, mbir nit mën na la may dara mais nga xool ne dëkk bi lii mooy indi jàmm nga ñu delloo si xel yi dañuy appelé ñëpp parce que tey dëkk bi jàmm la soxla parce que bi ñu demee ba gis euh, juge bii di Aliou ndaw bokk ci rassemblement bi de F24 bon nga xam ne bépp juge wala bépp magistrat ëllëg yàlla mën na dogal nga laaj pencu réew mi Sénégal Macky Sall waru leen ëpp jom warul leen ëpp ngor ndax ñoom sañuy waajur ci dëkk bi leen dëkk sañuy rakk ci dëkk bi leen dëkk nit ki nag waroon nangu kenn di téye sa loxo di la def loo bëggut a def donc ñun ñëpp la ñuy oote muy euh, instant bii ñu toll mu bañ a amati Sénégal ñu toog ba Sénégal boo xam ne tey bu nit ñi waree ubbi seen place di xalaat ndax war neen mën a ubbi dineen liggéey wala duñ liggéey ñaan neen yàlla loolu jógee fi te comme Macky Sall nag moo nekk ci nguur gi ñu ngi koy fàttalil mu delloo ci xelam ba troisième candidature ko moom moom mu jël ko teg ko fële xam ne pare na ndax sénégalais yi war neen ko loolu. d'accord léegi lu jëm ci wàllum troisième candidature bi dafay am ñu bëri dañuy wax ne du jàmmi réew mi fan ngeen ko teg. non du du jàmmi réew mi. Euh, ñu koy wax mooy dafa am loo xam ne kàddu la parce que moom moo ko jël wax ko nit ñi te réew mi nag Macky Sall ëpp ñu fulla Macky Sall ëpp ñu fayda Macky Sall gënul ñu soo doon xool ci parcours bien vrai que yàlla am na lu mu ko teralee waaye soo doon xool ci njàng ñi nekk candidat gënul leen jàng gënul leen juddu gënul leen dela yàlla moo ko seppi ci biir nit ñi teral ko te yàlla moo mun noonu moom moo taxaw ci biir askan bi wax leen ne boo leen ma falee bii mooy bu mujj te tey réew mi ñu bëri gisuñu seen bopp parce que dund gi cher na location bi seer na bëri na ay euh, mbir yi nga xam ne lu ëpp solo mooy jikko yi dafa yàqu ndax tey suñ toogee ba gis ci dëkk bi yoo xam ne mosuñ ko woon gis yàlla defar ko mu def deux mandats donc war na dem abal ñu loolu mooy conséquence su troisième mandat jéem a jéem a force beneenu mandat lan mooy conséquence yi. waaw conséquence bi mooy euh, lañ fi gis rek fan yi weesu parce que askan bi nag moo yor doole bi te comme nee na buggul ah buggul donc buggun dugg ci yenn yi parce que suñ sañoon réew mi jàmm. mais da nga jàpp ne bu ne na def beneenu euh, candidature manifestation yu amoon 2011 jàpp nga ne manifestation yooyu mën na amaat. yu yu manifestation yooyu mën na am mën na bañ a ñàkk am ndax li koy waral ab Ablaye Wade taarix la ñuy def bam ñëwee def troisième candidature forcé ko bien vrai que manifestation amoon na waaye benn demee ci urne yi dañ ko gañe woon mais li ñuy bëgg nag ci moom mu génn par la grande porte parce que ñun suñ sañoon réew mi jàmm moo fi am donc ñun à chaque fois lépp lu ñuy gis rek parce que benn demee même ci parrainage bi di ko xeex ñëpp gis nañu dañoo jël suñu kii dem déposer ko donc euh, manifestation man na am mais ñu nit manifestation bu amoon bëgg nañ nit ñi di ko defee ci beneen anam parce que tey jii nii mu ngi mel ni bis yu ñuy taal ñun duñ ci ànd ndax képp koo fal ëllëgit bu bis yu manqué dina ko jëndaan euh, yenn sénégalais yi ñuy yàqalit suñ sañoon du am donc tey ñun suñ sañoon manifestation du am dañuy def ay élection yu libre yu transparente ñëpp bokk ci li ëpp solo mooy yàlla def xelam dellu si ba ñuy bañ a àgg ci ay manifestation beneen bi aussi euh, ci F24 yéen ne ngeen euh, faagaagal gi ñuy faagaagal ay adversaire politique da ngeen a bëgg aussi mu dakk ban taxawaay ngeen ci bëgg am waaw taxawaay bin ci am rek moom mooy taxawaay détermination te taxawaay ful fulla ndax tubaab day wax ne celui qui n'a pas encore franchi la rive na doit pas se moquer de celui qui su noie donc kon ñun ñëpp ñoo bokk langue gi gis nañ ne tey Khalifa Sall gis nañ li xew ci moom gis Karim wàdd nekkatu ci réew mi gis li xew ci moom ñu gis Ousmane Sonko li xew ci moom donc ñun ñi ñëpp ëllëg mën na dal suñu kaw parce que gisuñ kenn koo xam ne mbër moo xam ne la bëgg na bëree te du bëree kenn te loolu mënut am ci làmb làmb boo demee ba jàpp ne man nga dangay ñëw sëgg ak say morom mhm. comme moom dem na ne ba man na léegi dafa waroon di nangu di sëggoog ay moromam mais bii paa nag duñ wax sax sëggoog moromam bii paa dafa war a ñëw nekk promoteur tëgg làmb indi ay ay supporteram xool ku leen neex ci ne wala mu samp ndëm ndëndëm waaye jàpp na ne ku mënta sampit xam ne ne sénégalais yi war nañ ko gannaaw wan ay nitam gannaaw donc du du nekk loo xam ne mooy loolu na organiser ay élections mu abal ñu ñun ñu génnee président bi ñu soxla ci biir F24 yaakaar judduwaat. mais euh, Cheikh Omar Cissé euh, si société civile bi euh, ku ci mel ni Alioune dafa wax ne euh, candidature Ousmane Sonko buñ ko éliminer Euh, mën naa dugal Sénégal ci jafe-jafe mën naa gën a yàq suñu démocratie nee na aussi boo si yokkee ñi nga xam ne peut-être mën nañ leen a éliminer ci parrainage tension bi mën na gën a man na gën a euh, yaatu ci Sénégal. waaw loolu wax après waxi Alioune la mais euh, aussi ñun lu ñuy wax daal képp ku nekk ci opposition bi suñ sañoon da ngay dem ci candidat a chaque fois dama lay wax ne jàmm si la lëpp xaj. donc nit ki nag sooy oote jàmm doon ne jàmm man naa ñàkk man dama jàpp ne ba léegi réew mi soo déggee ñu ne kenn mënu ko xar ñaar ñun ñëpp benn leen. mais ni muy demee waaw ni muy demee moo tax ma toog fi di wax ak yow wax ni muy ni muy demee taxut tamit nga inciter nit ñi ne leen jàmm mënta ñàkk man dama gëm ne parce que élection ay fête la ñun ñëpp dañoo war a bëgg ñun ñëpp dañoo war a kontaan. parce que ñun ñoo war a mën a tànn ki nga xam ne yaakaar nañ ne ëllëg moo war a jiital suñu réew. waaw mais li ñu gis mooy ki nga xam ne mooy ndeyu mbili gi. war a teg ay jéego yuy tax jàmm am mais safaan wa safaan wa lay def. waaw xam nga man dama bokk ci sénégalais yi euh, suma président bokk ci sénégalais yi donc c'est la majorité qui domine su bës baa boobu moom lu mu gis rek dina xam ne loolu la. Hmm. su boobu jotee lu mu gis rek parce que olof day wax ne. Euh, Euh, xama géwél lu mu jéeñ xepp ko mhm. waaye nag suñ tollaa ci boobu su fekkee mars li fi jàll askan bi wan ko ko ak leneen ak leneen askan bi wan ko ko bu continuer di def ah ñun ci biir askan bi leen bokk rek ñun ñëpp ñu xippi suñu bol seet waaye daal li ëpp solo mooy jàmm na dellu ci réew mi parce que ñun ñu bëgg a yor réew mi ëllëg bëgg nañ ko fekk ci jàmm. mais ñi ànd ak euh, Ousmane Sonko dañu jàpp ne dañ ko bëgg bu ndox ndoxatal ngir mu bañ a participer ci élection. waaw loolu euh, dafa am loo xam ne en général euh, Ousmane ñëpp xam ne ne tey jàmbaar la ci li muy def nit ki nag dañ jàpp ne ñun ñëpp luñ bokk ñoo bokk benn déterminateur commun mooy naka la ñuy def. ba Macky Sall jógee fi abal ñu naka la ñuy def ba li ñuy ooy bi doxalin bi mu jógee fi mu jox fi ay jéego yu bëri dox fi ay jéego yu yu am solo donc tey jii nii am ñenn ñoo xam ne ci Sénégal ñu ci bëri jox nañ ko loxo donc tey jii nii kooku soo ne doo du bokk ci élection yi da ngay indi ay problème ay problème lay indi te tey liñ ko tegit amul benn opposition boo xam ne teg nañ ko fi te la muy xeex tamit pour ñun ñëpp la parce que tey nen ko def def ko xalifa Sall def ko Karim ñun ñii suba mën na dal suñ suñ bopp léegi nag la nga xam ne moom la def wala defu ko mu ngi ci loxo yoon ñun jun ci àddu. d'accord léegi gis nañ président Macky Sall euh, ñi nga xam ne ñoo ko wër bis bu set ñoom ñoo ngi koy euh, puus ngir mu ngir mu sampaan dëndam maanaam ministre yi nga xam ne tey ñoo nekk ci gouvernement bi premier ministre. Mansour Faye ministre de la justice ñu bari seen kàddu boo ko déggee mooy président Macky Sall am na sañ-sañ sampan ndëndëm ci euh, ci deux mille deux mille élection deux mille vingt quatre yi. waaw loolu si ñu nekk ci Macky Sall la nit ñi gis mais ne naa la ñun dëggal ak jubal ak fexe réew mi nekk ci jàmm tey ñoo ñu seen intérêt personnel moo tax ñu koy wax tey it ñun dañuy fàttali waa opposition bi na nga gis kenn ku nekk ci partie dina wax ay waxin. wala mu jëf jëfin foog na ne bu Macky sàll euh, jógee fii rek ñoom suñu yéegee seen mbir faju donc ñun suñuy wax dañuy wax d'une manière général mooy na nit ñi bëgg Sénégal mu nekk dëgg ci ñoom ñu bàyyi di xool seen intérêt personnel parce que li ñëpp bokk rek yëfi ku ngi ci hmm. waaw li ñëpp bokk hmm. yëfi ku ci donc ñooñu di wax tey mooy la ma la waxoon rek bi ñu demee ba problème am Macky Sall rek a ciy des mais mais dialogue politique bi président woote hmm. Euh, yéen union euh, si seen union sociale libérale mhm. union sociale libérale yéen dialogue bi euh, lu tax ngeen lànk ne doon wuy ji waaw ndax buñ fàttalikoo jaloog bi passé le président maître Abdoulaye Tine demoon na ba bam génnee sax yàlla def na preuve yaa ngi fi RTS jël na ko di jox ko benn interview ñu toog foofu premier jour bi leen dem Macky Sall moo ñu waxoon ne pare naa ci ay njuuj njaaj euh, loo dialoguewut ba mu des parce que dafa am loo xam ne ci constitution bi la ñun duñ ci jalooge parce que li nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk te mu am ci lum ñu tënk loolu duñ ci dialogué léegi nag aussi tamit. lu ngeen loolu lu tax ngeen jort. parce que il faut mu am ay termes de référence booy waxtaanee da ngay xam ci lan ngay waxtaan. parce que askan bi moo yor doole bi te askan bi wan nañ ko gannaaw du nangu mu féewala ñoog askan bi parce que bu indi woon ay termes de référence ne ci lii la ñuy waxtaan mais dafa am loo xam ne ñun duñ ci waxtaan muy le parrainage bi nga xam ne CEDEAO daf ko daan mu bañ daan yooyu te tey yow miy toog carte d'identité CEDEAO nga yor te tey CEDEAO boobu moom moo taxoon mu dugg biir Gàmbi ba génne yaay Jammeh mu bañ ko ba démb ba suba appliqué wul ko mu taxawaat bëri li ñu waxoon foofu ba tey nit ñi ñu ngi ruumandaat ba léegi même troisième candidature bi bu ci daan waxtaan kiy wax nii wii nii non bon amagul dara lu leer ci boppam bi li xam ne wii moom moo ci des li koy ñaan rek la ñëw créer ay élections yu libre et transparent mais fu mu nekk nii am na lu bëri loo xam ne mënuñ cee waxtaan te peuple bi décidé wut pour ñu dem waxtaani ji. kon yéen euh, union sociale libérale euh, du ngeen waxtaan ci même bu joxoon terme de référence yi. su dee troisième candidature bi euh, ci la bokk du ngeen dem su dee lu jëm ci parenage bi du ngeen dem ndax euh, sénégalais yépp aussi gisoon nañ euh, taxawaay bi ci maître Abdoulaye Tine amoon pour xeex parenage bi yóbbu nañ ko yóbbu na ko ba bitim réew comme ni nga ko waxee CEDEAO ba ba am si ndam bañ sàkk ñu dindi ko fi kon jàpp nga ne loolu même bu bokkoon ci terme de référence yéen du ngeen ci participer waaw xam nga li nga wax mooy li nga xam ne CEDEAO dafa indi ndogal wala troisième candidature moo taxaw wax sénégalais yëpp ndax loolu duñ ci mos a waxtaan mais tey soo ñu indiloon ay termes de référence nañu fichier baa ngi nii fichier électoral baa ngi nii ak ñëw leen ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy créer ak seen xelaat ñu créer ay élections yu libre ku bëgg a bokk bokk loolu jàpp ne na parce que waxtaan kenn du ko bañ. mais waxtaan day ànd ak dëggu. soo yàggee waxtaan ak nit ki. non ñun du mënoon ragal Macky ndax Macky du suñ problème. non wóolu. non wóolu am ci moom. li tax wóolu marul am ci moom ndax dañ yàgg gis euh, ay ndéggi sirax yoo xam ne da koy teg moo tax ñun wóolu mais du dañ koy sóoraale. parce que maanaam question mais dafa am ñu bari ci opposition bi dañuy wax ne dialogue bi du lu sincère euh, ba pare maanaam maanaam dëgguwul aussi. waaw ñun loolu lañuy jàpp mais xam nga nit ku nekk rek yow boo toogee sa place nga mën a waxtaanal. ñun gisul est-ce que wóolu ngeen est-ce que am ngeen confiance ci Macky Sall mu woote dialogue. jamono ji jàpp ne confiance bu sincère moo war a am jamono ji d'après ni muy doxalee jàpp ne dialogue bu sincère mën na am. ci ñun luñ jàpp parce que moom moo ko wane. parce que bi ñu toogee ba huit mois des ci élection yi nga def fi presque douze ans. Mhm. soo jaloogee nit ñi gis ci résultat. à chaque fois yaa ngi xool. parce que F24 dafa juddu bett ko lu mu foogutoon la parce que boo xoolee 75 pour cent tey ci électeurs Sénégal man nga leen man nga ci njortu ne ñu ngi biir F24 mu jàpp ne tey jii ni Sénégalais yi jox neen bopp F24 on est en politique ay circonstances la léegi dina jéem a xool ëllëg ci jàngat naka la war a mën a def ba féewale waa waa F24 moo taxoon ma ne la M23 jàll na fii yeewi taxaw na fi te ñun ñëpp lu ñu bokk moo war a ëpp lu ñu féewale donc ñun du nangu tey Macky Sall féewale ñu ak suñu askan du nangu Macky Sall féewale ñu ak ñun àndal tey. d'accord léegi euh, Cheikh euh, Omar Cissé euh, yow nga bokk ci parti bi di Union sociale libérale bu Maître Abdoulaye Tine yaa yor lépp lu jëm ci wàllu massification parti boobu yow lañu ko daal di dénk léegi yéen yéen a ngi xeex lànk bañ a dem ci li nga xamante ni tey. moom mooy euh, dialogue bi ñu gis na tey Khalifa Sall euh, ci F24 la bokk mais nee na moom dafay dem ci jaloog bi P PDS bokkul ci F24 mais nee na dafay dem ci euh, dialogue bi ñoo ñu dem ci jaloog bi ndax nangul nga leen seen gis-gis. waaw xam nga nit ñi dañuy faral di wax démocratie mais démocratie si fépp leen koy xaar ndax tey man fi ma toog tey soo ma laajoon. kan nga jàpp ne moo war a jiite réew mi en deux mille vingt quatre dama naan la maître Abdoulaye Tine ki ànd ak Khalifa Sall boo ko toogoon fii laaj ko daf naan Khalifa Sall ki ànd nag keneen keneen keneen donc démocratie mooy li ma la wax léegi ñaari nit su man ngeen bokk même bëgg-bëgg seen doxalin mën nañ ute seen yéene mën na ute léegi nag ñoom li tax ñoom ñu nangu pour dem fa dañ leen koy nangul ñoom ñoo xam lu tax pour ñu dem fa waaye ñun luñ mën xam mooy ñun parewun pour dem te incha allah duñ dem ci dialogue bi waaye nag dañuy démocrate aussi ndax loolu lu tax ñu bokk vingt 24 mooy troisième candidature les détenus politiques dialogue bi nag ñëw ñëw na fekk ni si ñoom gis neen ne ñoom war neen mën a dem pourquoi pas ñu bañ leen ko mën a nangul. waaw mais dañoo gis ne tey euh, ku si mel ni docteur Abdourahmane Diouf euh, Ousmane Sonko euh, Aminata Touré ñenn ak ñeneen ñoom nee nañu ñoom li ñu jàpp mooy dialogue politique bi. ab dil la boo xam ne euh, bu président Macky Sall teg ngir valider li nga xam ne mooy troisième candidature am. waaw xam nga loolu ñoom ñoo ko wax te euh, nit mënoo nettali géntam ñoom la tax ñu wax ko xañ na ñoom xam nañ ko mais ñun lu mën a jàpp mooy duñ mës a dil ci gannaaw sénégalais yi. du mosa wax loo xam ne tamit wala dem ci loo xam ne nekkul intérêt sénégalais yi. mais jàppoo ne président Macky Sall euh, jaar ci troisième euh, troisième mandat ndax jàppoo ne daf ko bëgg jaarale ci ci dialogue politique bi. waaw mënul ko jaarale ci dialogue politique bi ndax lu tax su leader yi opposition bi yëpp demoon ne ko d'accord nen pour nga def troisième candidature nga xam ne ñoom ñëpp kenn yoru ci doole ci askan bi moo yor doole ji te askan bi ci boppam ñoo taxaw tey ne ko yaa taxawoon dig ñu ne ñu boo ñu falaatee ba 2024 ma dem ab able askan boobu moo yor doole ji te askan boobu moo taxaw tey ne temm ne Macky Sall waratul def troisième candidature am ñee ay njiit leen parce que ëllëg mooy li may faral di wax parti njiit daf ci am solo parce que moom mooy toog man mi toog fii tey di wax am na ñoo xam ne ñu ngi suma biir parti ñoo ma dàq wax waaye yàlla dafay nekk ne boo leen nekkee ci dara il faut mu am ku jiitu wala am ku dem donc président parti ku ci demoon tey ci Macky Sall ñëpp laa la wax de waxuma la benn de président parti opposition bi yëpp suñ demoon tey ci Macky Sall ne ko d'accord neen pour nga def troisième candidature askan bi ne leen déedéet parce que askan bi moo yor doon ñun dañ gëm ne le changement c'est le peuple moo taxit damay dellu di faral di wax ne peuple bi nañuy bàyyi xel mooy comme ni nga ko waxee toogoon neen place de l'Obélisque en 2012 yàgg fa toog euh, même discours moo fay ñëwaat ak même façon de faire il est temps que peuple tamit di xool naka la ñuy tànnee ndax wax dëgg yomb na rek mais dëggoo am solo mais nag euh, maa ngi la ñuy bàyyiloo xel muy partie bi ma nekk muy union sociale libérale te ma jàpp ne am nañ vision ak programme bi nga xam ne tey jii nii suñ ko tegee ci biir fi Sénégal Sénégal mën naa changer bon maa la ñu bàyyiloo xel ñu bàyyi xel maître Abdoulaye Tine ñu bàyyi xel union sociale libérale mu ëpp solo maître Abdoulaye sax ñu bàyyi union sociale libérale ñu bàyyi ko xel xam ne mën na changer Sénégal d'accord jërëjëf euh, Cheikh Omar euh, Cissé élection présidentielle 2024 euh, ma ngi dëgmal ñi nga xamante ni tey ñooy waa Sénat même ñoom sax ñëwoon nañ def benn rapport que ne doublon yi dañ ko war a supprimer surplus bi dañ ko war a supprimer parrain yi dañ ko war a wàññi ak yeneen ponk yoo xam ne indi nañ ko euh, ponk yooyu ak parrainage bi ak doublon yi euh, ndax jàppoon na yéen mën ngeen ci am problème yéen union sociale libérale. no ku nekk mën na ci jàpp ne mën nga ci am problème parce que bëri na ñoo xam ne éliminer leen leen leen en deux mille dix-neuf mënuñ la wax ne lii moo tax ñu éliminé leen. xam loolu moo taxoon ñuy xeex parrainage mais boo bu la taarix fàttalikoo mooy en 2019 on faisait partie des 27 candidats bokkoon nañ ci vingt 27 candidats avant ñuy seppi di tànn cinq candidats yi donc ñun dunne parrainage def nañu problème. mais fu euh, foofu leen ñu kale. parrainage parrainage mais ñun comme dañ jàppoon ne doxul moo tax ba nga gisee 27 après vingt 26 nga gis ñu bind. ñun benn bi parce que ñun den jàppoon ne teguwut ci yoon te xamul naka la ñuy seppee ba tànn ba éliminer ay candidats ñu jël dossier bi yóbbu ko CEDEAO di ko xeex mais on faisait partie de vingt six candidats mais par la suite vingt six ngay dégg ñuy wax parce que ñun gisoon nañ ne du dëgg te jëmalewut fenn Sénégal te gis nañ ni ko doon defee mag Macky daf ko tegoon rek pour ndeji sirax bu hmm. loolu maa ngi ci o toute l' opposition ñu xam ne du xeexi union sociale liberale ndax tey soo ne concerné wu ma rek bu subaa mën na laa concerné soo ne lii nii tey jii nii am naa parrainage du suma problème ñun amul problème yi parrainage parce que parti bu fi nekk sénégalais rek nga yaakaar te tey liñ am ci ay représentants liñ am ci ay coordonnateurs euh, ci Sénégal mu leer ñu man mii rek tey su ma jógee parrainage ma parce que comme ni nga ko waxee boo nekkee ci massification donc xam naa li ñu samp Sénégal te xam naa ne tey su dara desul lu dul parrainage mënuñu të mais nag comme dañuy xeex pour démocratie te ñu jàppoon ne niñ ko tegee jaarul yoon te yàlla seetaanul ñu dimbale nañu ba lañ waxoon yàlla may ñu ci ndam bon ñu ngi si suñu yoon ba léegi. d'accord lu jëm ci wàllum primo votant yi mbind mi euh, jàll na fan yële euh, ñi nga xamante ni ñoo doon bindu ñu bari ne nañu am nañu si ay jafe-jafe am nañu si ay gàllankoor. am sax ñuy wax ne président Macky Sall dafa mel ni bëggul ndaw ñi inscrit ci liste électorale yi wàllum inscription yi primo votant yeeg changement yi ban gis-gis nga ci am. waaw mooy dafa waroon gën a tegu ci yoon mooy lii gars yi di faral di wax muy problème yi fichier bi muy problème lu bëri euh, dafa war di leer ndax primo votant yi ñu bëri tey ni nga koy ni nga ko jotee ñun ñii suñuy parti am na ñoo xam ne noonu leen ñuy wooye naan ñu fii am naa fi problème fii lii wala lële mais loolu yëpp dañuy jàpp ne rek ay ndëji sira parce que xam ne ne askan bi war nañ ko gannaaw xam na ne ndaw ñi war nañ ko gannaaw mais loolu nag du tere tamit lañ war a xeex di dinañ continuer di ko xeex. d'accord jërëjëf euh, Cheikh Omar Cissé yow nga bokk ci parti bi di Union sociale libérale yow la ñu invité tey ci rajo Rewmi FM ci émission pencum réew mi. mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, si sa biiri kàddu wax nga ay yoon yoon Euh, Macky Sall askan yi war nañu ko euh, war nañu ko ginnaaw euh, mais ñi mu àndal ñoom ba léegi ñoom gëmuñu loolu dañu gëm ne président Macky Sall ak li mu def ci réew mi war naa présenté waat am na ñenn sax si ñoom ñoo xam ne nee nañu jàmmi Sénégal mooy président Macky Sall présenté waat ñooñu dañuy nax seen bopp wala lan nga jàpp exactement ne moo tax ñoom ñu jàpp ne Macky ba léegi Sénégal yi ëpp moom la ñu àndal. waaw xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex te tubaab day faral di wax ne la chose la plus facile dans la vie c'est sa tromper li gën a yomb ci àddina mooy nax sa bopp gént nag kenn mënu ko teree am nit revit it kenn mënu ko teree waaye ñoom suñ amoon respect ci ay sénégalais duñ wax loolu ñuy wax ndax Macky Sall air bu muy nooyi la ñuy nooyi Macky Sall tey boo ko tegoon li ma la wax ëppul ñi fi nekk comme doon candidat gënul leen donc amul kenn koo xam ne boo demee muy États-Unis muy fu nekk doo dégg kenn wax loolu mais ñoom tey seen intérêt personnel moo leen topp moo tax ñu mën a gisee noonu mais comme ñun on est démocrate dañ leen koy nangul mais soo gisee ñu wax na leen sénégalais yi war na leen gannaaw c'est la majorité qui domine te tey ñoom ñu minoritaire leen ndax élection municipale yi passé wane na ko élection législative yi passé wane na ko ndax ñu ngi mosoo toog tey ci législature li am opposition bi am représenté ko biir assemblée mu ngi soog am ci tarixi Sénégal donc ñooñu tey bi ñu toogee fii tey di ñu wax nañu président Macky Sall war na mën a demaat wala bu fi toogee ñun ñu gis tële yi nga xam ne tële na ko ñu gis yenn euh, fay yi nga xam ne am na ko loolu moo tax tey ñu taxaw pour changer le Sénégal ndax tey boo xoolee dund gi cher na location bi cher na santé bi tey seer na nit ñi tey Sénégal moo tax suñu partenaire sénégalais kenn waratu fi dee ngir amuloo loo fajoo nit ñi ñu ngi dem hôpital kenn xamul fi ngay jaar donc ay nitam nag c'est normal parce que moom nga fi dégg ñu ne la diw yóbbu na ay milliards te ba léegi mujjut fenn. waaye ñun comme ci ay cent franc leen toll ak mille franc donc ñun xam ne ne Sénégal doxul te yow mii toog xam nga ne Sénégal doxul. ah da nga gis ne corps de contrôle yi ñoo ngi épinglé ay nitam te dara du du du. nit ñaa ngi koy dégg chaque jour chaque jour ñu dégg ko. donc ñoom ñooñu kay bi ñu toogee suñ ne la xam nga euh, nga toog ci lu neex taxut nga fàtte sa askan. parce que ñoom ñëpp lépp lu ñu am askan bee tax ñu am ko mais Sénégal dafa laaj changement ci jikko. change laaj changement ci lépp boo demee tey suñu mbokk baykat yi nekk ci àll bi soo ne leen Sénégal mu ngi dox dañuy ñuy bay ba nawet bi jeex mais seen gerte gi doo gis ko ko jënd ci prix bu baax tey suñ toogee ba gis ne man sama maam ju nekk Saloum ba léegi ngoos-ngoos lay bayee ak illeer te nga bëgg a gis ne secteur primaire bi doxut secteur secondaire bi doxut secteur tertiaire bi sax la ñuy xawal laam-laame parce que si leen gis leen ni ana usine bi nga gis pêcheurs pêcheurs yi chaque jour su ma napp su ma mbokk nappkat yi chaque jour nga dégg ko ñu ngi dem ci géej gi di dee ñenn ngi di dem ñu jël ay licence de pêche jox ko ñeneen ñoo xam ne parce que bëri nañ euh, ay mool yoo xam ne xam naa da ngay dem géej ba bëgg a dee pour nga am jën sax problème la nan daan dundee yore seen jabar sax yoreetuñ ko donc y a beaucoup de choses nga xool commerce bi tey lu bëree ngi ci sooxee bon tey réew moom boo réew mi mu ngi dox ndax kooku moo ko mën a yor saaga sénégalais la lam manoon def na ko te ayam jeex na man dama jàpp ne fu nekk nii ñun ñoo ayee mais àq ak fu askan wi liberté yi ñenn ñi dañuy jàpp ne dañ ko salfaañi ci senegal waaw ndax euh, loolu moom yàgg nañ koo waxtaan te président Abdoulaye yàgg na cee wax parce que moom ku ko xam-xam ne bokkoon na ci ñuy xeex àq ak yelleefi doomi aadama euh, nekkoon droit de l'hommiste ñu bëri xam ko ci loolu tey boo xoolee mooy li ñuy wax rek Sénégal euh, ku la ëpp doole wan la ko lu waaye dafa mel ni kumba mu am ndey moo fi am ak kumba mu amul ndey am na ñoo xam ne lu leen neex ñu def te dara du leen ci fekk waaye am na loo xam ne dineen def loo xam na sax di nga xelaat ndax est-ce que lii ñu def jar nañu teg leen lii ñu teg leen mais du tere ñu teg leen ko donc na delloo ci xelam xam ne àq ak yelleef yi doomi aadama yi fu mu nekk nii salfaañoo na fii ci Sénégal te war nañ xoolaat doxalin bi ba Macky Sall toogee ngay dégg tey lu bëri ci réew mi nit ku ne nii ñu jël ràpp tëj yaa com y' a plus de deux cent cinquante personnes yu ñuy wax ne jàpp nañ leen fii euh, Dakar soo demee Ziguinchor ñu ngi wax cinquante personnes nga dem Kaolack dem feneen ak feneen ñu ngi wax donc au nom donc nit ki am na sañ-sañu mooy la ma la waxoon ñun duñ ànd ci kiy wax li du dëgg du ànd ci kiy wax lu dul yoon waaye nag démocratie dafay laaj nit ki nga may ko mu exprimer wu wax xalaatam wax gis-gisam ndax bu fekkoon den gis ki wax dara ñu tëj ko gis keneen ku wax lu mel noonu ñu tëj ko te bokk ci moom moom bon ñu xam ne mu ngi doxal bu baax a baax. d'accord euh, jërëjëf Cheikh Omar Cissé yéen euh, union euh, lib union sociale libérale. yéen union sociale libérale euh, fédération la union bi pour lan la ndax dafa am ay mouvement wala ay yu nekk ci biir ba mu nekk benn union wala yéen yéen a ko tuddee union sociale libérale rek. waaw union foo ko dégg rek mbooloo ngi ci lu ma dàq fédéré ngi ci parce que ñun parti bi la majeure partie faisait partie de société civile bi leen bokkoon en 2014. leen xalaat parce que ñu bëri soo waxaan denn duma def politique parce que politique doxalin bi euh, boo boo waxee sax ñu ne lii waxit politicien la ñu ne non mais boo toogee ci gannaaw di defee noonu rek gars yi dinañ décider sa place donc il faut nga ñëw ba fi ñuy joxee kàddu yi comme yàlla may na la expertise bi may na la expérience bi mas na la xalaat bi nga ne ma ñëw def lu mel noonu loolu moo waral maître Abdoulaye Tine union sociale libérale union nag mooy mbooloo mooy ñu nekk benn ñu nekk mbooloo nekk benn suñu ite nekk tey naka la ñuy def ba xeex ndóol mi Sénégal naka lañuy def ba ku feebar Sénégal faju naka la ñuy def ba ku xiif lekk naka la ñuy def ba ku amul dëkk waaye am foo dëkk parce que ànd balaa muy neexit ngeen yërëmante te dimbalante. waaw mais instant bi est-ce que euh, union sociale libérale pare ngeen pour dem ci élection présidentielle est-ce que matukaay yëpp jàpp nga ne yemb na. waaw lu parfait da dégg ñu ne la amul su ma fi toogee tey ne la lépp yemb na la yow mi sax su ma jógee nga xam ne kii daf may nax waaye le 22 octobre bi passé lancé nañ suñu candidature. bon nga xam ne pare neen pour dem te amul benn matuwaay nee naa la su fekkoon ci vision rek leen ko teg ak programme ak parcours jàpp naa ne mais maître Tine mooy nekk président de la du Sénégal. moo tax nag est-ce que programme bu fas euh, xam nga jamono ji nit ki mënul toog léegi dévoiler programme am. mais am na ay axes no programme bu réalisable et faisable laa lay wax programme boo xam ne suñ ko waxee ki nekk Fongo Meli sax. dina comprendre ñuy wax. waaw mais comprendre li ngeen di wax. ak ñun est-ce que dañ ko non weesu neen sax jëfee ko heure bu ci tollee dinañ décliner suñu programme te lépp lu ñu def dinañ leen wax naka leen koy defee ak lépp bépp somme bi ñu ciy dugal dinañ leen wax fi ñu koy jëlee pour la première fois nee naa la euh, nañu sénégalais yi bàyyi xel foofu lay oon ak sénégalais yi am na benn baat bu may faral di dégg gars yi di ko wax. soo nee am naa candidat ñu ne la fu mu toj donc tey bëri na li ñuy wax ci opposition wala feneen peuple bi ñoo ko yóbbee ñooñu parce que ñoo insité nit ñi si guerrière ku defi fi jàmbaar wala ku yuuxu wala ku wax mbir mi nekkul foofu mbir mi mooy ñun tey dañoo ñëw xool fan la problème bi nekk ñu jéem a indi ay solution te solution yooyu gis naa ko biir union sociale libérale te programme bi lay indi incha allahu rabbi saa buñ ci tollee di nga xam ne lu faisable ndax ñun askan bi rek moo ñu ñor ndax Sénégal kenn mënatu fi toog feebar te doo am foo fajoo nit warut fee xiif te doo am lu muy lekk d'accord mais yéen comme par exemple tey maître Abdoulaye Tine ci seen programme peut-être yow nee nga doo ko dévoiler mais comme moom euh, dafa nekk ci acteur yëngatu ci wàllum yoon mm-hmm. lu jëm ci wàllum euh, indépendance de la justice ndax dañu gis ne benn manque de confiance am na ci askan bu bëri ak justice bi ñu jàpp ne séparation des pouvoirs dañ koy wax rek mais du réalité ci Sénégal est-ce que yéen tey bu leen nekkoon président de la République am ngeen taxawaay ak gis-gis bu leer fexe ba magistrat yi moom seen bopp président bi génn loxoom ci conseil supérieur de la magistrature ak seen ñoom non ku xool doxalinam di déglu ay kàddoom oh, heure bu ko yàlla dénkoon réew mi loolu daf ñuy wees gannaaw dootuñ fi nekk naan dina amum du am mais dootut am ba illa yow mi diini loolu lu ma la mën a rassuré la ku ne moom boppam parce que ñun ñuy ànd ak moom liberté boobu rek may nañu ko ci doxalinam ndax nit ku ne nag fekk fréquenté woo ko doo ko xam mosuma toog Sénégal tey nit wax metre Tine du la wax ne la candidat bi warul mën a doon candidat foo toj toj boobu nag lay wax ne mbir mi du coow mbir mi du xuloo mais Sénégal nan leen koy changé ñun ci loolu leen war a toll foofu lay oo sénégalais nee naa la mbiru justice heure bu ko ko yàlla dénkoon ñu xam ne parce que moom nii muy doxee nii rek tey ci biir parti ci ñu ko xam ñi nekk fa xam ne ne loolu dafa am parce que su ma demee ba taxaw fi ne la la suñu parti amul baron amul kii moo fi jiitu amul kii moo toll nii ñun ñëpp a yem ñun ñëpp doon benn. impunité euh, waxuma la loolu déggoolu ma la gannaaw la ñuy féete. Hmm. waaw gannaaw lañuy féete dootuñ ci waxaat sax. d'accord mais instant bii nii euh, est-ce que yéen ngi ci activité politique yéen union sociale libérale. waaw ñu ngi ci xam nga tabax balaa muy taxaw il faut mu am fondement ñu ngi woon si suñuy base di defar suñuy cellule il y a des coordonnateurs nationaux il y départementaux yoo xam ne tey ci sur les 557 communes soo demee ci 463 yoo xam ne tey am nañ fa ay ndaw yoo xam ne représenté nañu fa soo demee dans les 14 régions du Sénégal am nañ ay ndaw yoo xam ne représenté nañu te du yàgg ci kanam tuuti dinañ gis euh, les cadres de l'union sociale libérale euh, décliner seeni activités incha allahu rabbi d'accord jërëjëf euh, Cheikh Omar Cissé euh, yow yaa jiit yaa yaa jiite wala yow lañu dénk lépp lu jëm ci wàllu massification ci parti bi di union sociale libérale euh, yow la ñu invité woon tey suñu émission pencum réew mi ñu lay sant di gërëm yan kàddu rek moom ngay mujjee wax. waaw maa ngi leen ñuy delloo cant gi di leen delloo ngërëm gi di sant Sénégal di ñaan yàlla jàmm ci réew mi. ndax jàmm ci la lépp xaj te maa ngi ñaan yàlla aussi sénégalais yi ñuy bàyyi xel ci dara wax dëgg yomb na mais dëggoo jafe te réew mi ñun ñëpp a ko bokk nañuy bàyyi xel ñëpp nekk ay personnes démocrates ñu xam ne réew mi su yàqoo yàqalut kenn mais réew mi su baaxoo ñun ñëpp la baaxal. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Omar Cissé mbokk yi mooy yor lépp lu jëm ci wàllu massification ci parti union sociale libérale bu maître Abdoulaye Tine mi nga xam ne candidat la incha allah ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom la ñu invité woon tey si euh, samedi ji ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo kon ci wàllu machine bi mbokk yi jërë jëf jàmm ak jàmm mbokk yi jërë jëf jàmm ak jàmm mbokk yi jërë jëf jàmm ak jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm mbokk yi jëf jàmm jàmm mbokk jërë ngeen jëf